loo tumbe e moo jaay mbokkam wax leen baayu Cheikh Habibullah way naa borom moo jaay bokkam nga jënd ko saalubeem nga bay seex abdullah ndeysaan bay la borom dëggal waaw waaw moo jaay moo jaay bokkam nga jënd ko saalubeem wax leen bay seex abdullah bay na borom dëggal moo jaay bokkam nga jënd ko saalubeem nga amul lu leer. waaw waaw. Cheikh Madoumbe moo jaay. bokkam nga jënde ana waa Pass ana soppey Ahmadou Ndoumbe xabaar moo jaay. bokkam nga jënde ko taalobe. jënd ko taalu beem nga. mooy jaay ma dugg dugg ko taxaw te loolu jaay xaaral si am nga fi ma dugg moo jaay mbokkam nga jënd ko taalu beem nga. moo jaay moo jaay mbokkam nga. Ahmadu Ndumbe xabaar moo jaay mbokkam nga jënd ko taalu beem nga. moo jaay moo jaay waaw waaw. moo jaay bokkam nga jënd ko taalobeem waaw Ahmadu Ndumbe Xabaan moo jaay bokkam nga jënd ko taalobeem nga Ahmadu Ndumbe Xabaan moo jaay bokkam nga jënd ko taalobeem nga dëgg la moo jaay mbokkam nga jënde go taalobeem nga ah, waaw waaw Ahmadu Dumbe moo jaay mbokkam Lo Beng maami Serigne Mam Mor maami Serigne Ibrahima moo jaay bokkam nga jënd ko Taalo Beng ana waa Paas ana soppay ak ma dundum ne xabaar moo jaay bokkam nga jënd ko Taalo Beng Serigne Mandumbe Serigne Mandumbe loo been ga sopp naa sëriñ ndax ma dundum de moo jaay bokkam nga jënde ko taaloo been ga baayu sëriñ abibu baayu seex abdurahmaan moo jaay bokkam nga jënde ko taaloo been ga ma dundum de dialogue Serigne Mandoumbe moo jaay bokkam nga jënde ko taalobe maami Serigne Ibra maami Serigne Mamor moo jaay bokkam nga jënde ko taalobe Ahmadou Dumbe Ahmadou Serigne Mandoumbe moo kan nga jëndi ko taalibeem nga waaw waaw waaw waaw bàyyi sëriñ Abibu moo jaay bokkam nga jëndi ko taalibeem nga ma dugal la bàyyi Cheikh Abibullah way naa borom dëggal moo jaay bokkam nga jëndi ko taalu beem ga ndeysaan ndeysaan wax leen bàyyi Seex Abibullah way naa borom dëgg moo jaay mbokkam nga jënd ko taalu beem ga ndeysaan moo jaay bokkam ga ah, waaw jaarama maam Ibra Faal bakana borom géebo bayu Abdou Abdou Sakor Faal Seex Ibra mooy lamp yoon wi sol waaw waaw waaw Seex Ibra ah waaw jaarama maami rafal bakana borom kebo ayu abdu abdu sakor Seex Ibra ma lamp yoole ana bay fali Seex Ibra Seex Ibra Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal Seex Ibra Faal maam Cerno Ibra Faat Cerno borom daaru maam Cerno yéwén na xaati way naa borom daaru ndeysaan ndeysaan Cerno awaaw moom la Bamba yónni woon da ba mu demee wax ak borom gisee nan ko borom dara do waaja cerno cerno waaw waaw cerno cerno bam dellu see nan ko borom cerno naan ko borom dara du waaja yow rek kay waaja waaw waaw moom la jox nguuru Suleymaan may ko Daaru Salaam Seexanta moom la jox nguuru Suleymaan ana waa Daaru Salaam Seexanta Seexanta moom la jox nguuru Suleymaan may ko it Daaru Salaam moom la jox nguuru Suleymaan waaw waaw seexanta moom la jox buurub Suleymaan may ko it Daaru Salaam moom la jox buurub Suleymaan seexanta may ko it Daaru Salaam ne ko Isa demal la ga nga ñëw faag la gëm waanjen na waanjen na waanjen na waanjen na ne ko Isa demal la ga nga ñëw faag la gëm Kaysar ne ko Isa defal la gan muy yow fàq la gan Kaysar bari baraya awa Hassan. Yeah. يلازم ما زلت to me. واستغفر ولا أساتير الله أستغفر الله جل الله جل الله خالقنا جل الله جل الله خالق وكل مستغفرا ولا مساتر ساترنا جل الله جل الله خالق الله صلى الله على شيخنا على نتوب إلى الأبار فاتر فاترنا جل الله جل الله الله استغفر الله تلالا تلالا وبارز الله وكل قول فليقل قبل لبارز بارزنا جلالا جلالا جلالا وبارز الله يا أم مصطفى له كبل بابا لنا لي يا مصدر على كبل لم لكن لا لكن Belendo. waaw daam Diop est-ce que du ma woo daam mu ñëw. waaw ñëwal la garaaw. محمد ليلة مولد النبي محمد ليلة ليلة مولد النبي محمد ليلة ما ويري أبي ليلة ما وتعبي وطهري سمي ليلة مولد النبي محمد ليلة ما ويري أبي ليلة ما وتعبي وتفرس التاسمي سرين بامبا ليلة نينا سيدنا محمد من بامبا ليلة محمد رسول الله صلي على باب الهدى سرين بامبا ليلة na Seydina Muhammad man Bamba leela Muhammad Rasulullah salli ala babil huda Serigne Bamba leela nee na Seydina Muhammad man Bamba leela Muhammad Rasulullah صل على باب الهدى نايل مدى مول الهدى ليس الهدى ما هردى لنا محمد مي باب الهدى والكرم يا سيدنا